asalaamaaleykum mbokk internet di ñoo ngi leen di nuyu ziar di wax euh, képp kuy ci chaîne bi lay cloche bi euh, vidéo bu ñu dugal rek nga ci commenter également te partager vidéo c'est très important. ñu ñëw ci match euh, bu doxoon ci diggante Bayern ak Dortmund mu match 29e journée de Bundesliga donc mu match boo xamante ñu bari ah. Euh, parce que mars la boo xamee également euh, dañ doon xëccoo li nga xamante ne mooy première place bi mais à la fin gis nañ que ne euh, waa Bayern ñoom ñoo gagné 4 buts à 2 daal di jël première place bi en tout cas mu nekk match boo xamante ne tamit marqué na première bu bu Thomas Tuchel ci banc wu Bayern de Munich donc mu nekk première une première réussite donc boo xamante ne vraiment bu am solo la ci ñoom donc mars bi mars la boo xamante ne bu neexoon la intensité bi intensité bi mais gis nañ vraiment Dortmund go xamantene tay lacune yu bari na ci ñoom erreur yi surtout sen gardien bi erreur bi mu def ci ci début de match bi mom mo mën naa ne sax mom mo andi 4 yi donc bu dul won lool match bi peut-être que mu demee benen benen euh, mu nekk benen scénario mais bi bi nga xamantene tel teel na euh, waa Dortmund tel lañ ko jël lool mom mo leen empêcher ba tax euh, wa Bayern gëna accélérer donc dugal ci ci ci première première période bi 3 bi donc première mi-temps bi gis nañ à la treizième minute la Dayot Upamecano dugal donc erreur bu mag boo donc euh, ki nga ne Thomas miller daal di euh, à la 18e 23e miller moom loolu ñu du Je moom euh, à chaque fois da ciy nekk et que gis nañ à chaque fois dafay oser dafay niveau bi di Thomas miller en tout cas ki nga xamante ne moo dugal quatrième biu Bayern bi moom moo ko dugal en tout cas gis nañ que ne Bayern tey seen équipe bi xaw naa équilibré parce que Thomas Tuchel moom moo ñëw tegaat yëf yi ci ci à la norme et que euh, voilà quoi loolu moom moo moom moo moom moo moom moo récompensé tey jii donc gis nañ nag Thomas Tuchel mu mu mu mu osé jël ki nga xamantene moy Sadio Mané teg ko ci banc bi donc teg ko ci banc bi bala son soixante-huitième minute sax la Sadio Mané dugg ci ci match bi loolu nak xamna ay explication Thomas Tuchel dina ko def après match mais en tout cas ci banc bi la Sadio débuté mais pour man euh, c'est un peu normal gis que Sadio Mané bi ñëw ci blessure yàggul et que niveau bi xawna baissé et tout ça mais il faut que Sadio yëkëti wa niveau bi jëm ko yëkëti comme ni mu ko daan défé et et que et que gis nañ sax entrée bu baax la def même si que sax dugalul même si que ñu ngi don xaar lu gëna reuy ci mom mais peut-être que ci match yu jëm dina gën a am temps de et que dina wane boppam bu euh, baax a baax moom l'international sénégalais en tout cas euh, match bu baax la la waa Bayern def tey jii et que jël nañ li nga xamante ne mooy première place bu Bundesliga et avec deux points d'avance sur Dortmund et que waa Bayern loolu lañ bëggoon loolu tax ñu dàqoon seen course boobu di Nagelsmann et que Thomas Tuchel ñëwaat na tegaat jëf yi à l'ordre et voilà quoi en tout cas liñ leen leen dox wéy di like wéy di commenter jaa ngeen jëf.